léegi nag dégg ngeen kàddu yu rafet yooyu jógee ci sunu préfet bu baax bile léegi nag noo ngi jox sunu maam Papa Malick Sy ibnu Seydou Boubacar Sy salaamu aleykum Mawlaye Cheikh Abdul Aziz Serigne Babacar Sy Mansour El Hadji Malick Abdul Aziz Sy Dabakh Serigne Babacar Sy El Hadji Habib Sy mbokk yi fi teew noo leen di nuyu noo ngi leen di ziyaar itam di jiital nuyoo beeg ziyaar bi ci Sëriñ Abdul Aziz Sëriñ Abdul Aziz dafay am ñu koy faral di tudd di wax sëriñ Abdou Junior sama soxna xul ko wax ni du question âge question responsabilité la mu ni ndax koo xam ni yor na responsabilité bu ñu am junni at yorul kon ker waratu koo wax junior ma wax ko ni ko bu ci sa xol tàng ma ni ko dana ko di regleel boppam waaw ma ni ko ndax am na ku ko nuyu ni ko junior moom sëñ Abdou mu wax ko ni ko ñépp war nañ ma wax junior ba mu des yow ndax sa baay maa ko dugal néegu góor ma ni ko ma ni ko xam nga ni kooku ba ba àddunay tukki dootu ko ni junior ñu di ko ziyaara di ziyaara sunu wéyjur sunu nijaay sëriñ Babacar di ziyaara Cheikh El Hadj Malick ak tabarakallahu ñi fi teew dafa mel ni bi nuy ñëw maag maam Maodo mii Serigne Cheikh daf nu wax ni Serigne Cheikh daf nu wax ni bu ngeen demee nga wax sëriñ Babacar Sy Mansour wax Cheikh El Hadj Malick bu El Aziz ak yow mu ne nu Serigne Abdou tërale rek d'accord leen ceeg moom mu ni te ngeen wax ko njaboot yi itam mu wax ni man bokkul ci sama jikko may jiital nit di ko fakkatal mu ni kon nu mu doxale baax na loolu mu wax nag ñun d'accord nañu ci ni mu ko bëggee ci kàttanu borom bi dinañ ko doxalee noonu euh, mu mel ni itam damay wax ni bët du yenu waaye xam na lu bopp àttan sëñ Cheikh daf ma mës a wax ni ma Sëriñ Abdul Aziz ak soxna Ummu ñoo bokk àtte waaw fekk soxna Ummu ñu ñëw gàmmu si booba daan nañ fi am lu toll ci une semaine bi ñu ñibbee Serigne Cheikh wax ma ni ma bu ñu ñibbee bu ñu delloon waaw ana seen micro bu njëkk ba ah waay jox leen ma ko waaw bii kañ tabarkalla jàmm am na sëñ Cheikh Tidiane si wax ma ni ma bu nu delloo Ndakaaru soxna ummu na nga ko wutal médecin mu ne parce que seetlu naa ni sonn na bi soxna mu ñëwee dakaar sëñ Cheikh ni ma man duma ko gis léegi mu ni ma ndax bu ma koy gis mu may tàggu pour dellu Tiwaawoon te bu dama bëgg mu reposer mu ni ma suba soo xëyee demal nga nuy ji ko waxtaan ak moom ma yóbbu ko clinique internationale boole ko ak sam benn wëllëre bu fa nekkoon bu nuy wax docteur Chevalier dafa ñibbi léegi mu defal ko traitement waaye ba tey gisagul sëñ Cheikh suba su ma xëyee ma jaar fa waxtaan ak moom mu ne ana sëriñ bi ma ni ko dafa xaw bari rendez-vous nekk ci ba mat fukki fan benn bis ma xëy si mu ni ma ana sëriñ bi ma ni ko ba tey mu nga ca rendez ya mu ni yéen dangeen defe ni yéen a ma gën a muus mu ni bëgg ma téye Dakar rek jarul ma bañ a gis sëriñ bi man kañ naa ko gis lu ñu d'accord ma d'accord ci ma ñëw ci sëriñ bi ma ni ko dafa mel ni soxna umu ràññe na sunu fiiw waaw ne ko boo yeboo rek nga jaar fa gis ko waaye këroog bi mu ko gisee ñu toog soxna umu wax ni noflaay kenn du ko bañ mu ni waaye dama waxante woon ak sëriñ kër si ni ko sa waañ wi danaa la ko yenul ba ba ma lay fekk ci bàmmeel mu ni loolu moo tax mënuma ci dellu gannaaw sëñ Cheikh ni ma lii soxna ummu wax seq naa ko ak sëriñ Abdou di ko yërëm ak di ko propose noflaay mu ne ko la ma waxante woon ak góor gi kon yal na yàlla jàppale ko ci ah mu mel ni fa tabarakallahu eh, ziyaar lañu wax ziyaar nag sàkku yiw la ca kan ko yaakaar ci moom sayid cheikh ahmed tijani radiallahu taala anhu moom mi moom tariqa bi ni taalibeem daan ñëwee ci moom di ko ziyaara noon la daan jóge di ziyaara ji taalibeem ñu ni ko lu tax mu ni dañuy wut si yiw ci man man it may wut yiw ci ñoom mu ni te man maa leen di ëppale yiw ñu ni ko lu tax mu ni bu ma leen dee ziyaara ji duma sol dàll moom cheikh mu ni bu may ziyaara ji sama taalibe duma sol dàll ndax bëgg koo ëpp yiw mu mel ni bi ci des mooy li taxoon Cheikh El Hadj wut tool wut tool di ko bay ñu bay toolam ba tool ba sotti mu ni nañu seet bor yi tool bi am ñu fay bor yi ba tool bi jeex ci biir bor yi ñu ne li nu jaayoon ci gerte jeex na mu làmb poosam la ca nekkoon ci xaalis mu dindi ko def ko ca bori tool ba ba mu jeex bor yi jeexul sëñ Babacar si làmb poosam dindi la ca nekkoon def ko ci bori tool bi ba ci poosam jeex taxul bori tool bi jeex sëñ Babacar ni ko bàyyil tool bi ni ko tool ku koy bay loo ca am nga ci bëgg waaye li li nga amoon yëpp dem na ci mu ne ko lu ma ci am taxul ma wut ko waaw ni ko njaboot yi fiy daje laa bëgg ñu xamante miinante boobu ëllëgee ku nekk mën a jóg dem gane ji sa moroom mu ni loolu laa jubli ci tool bi moom Cheikh El Hadj foo ko ma sa fekk mu soonu nga tàgg ko pour gane ji sa mbokku taalibe la muy njëkk def mooy lu nekk ci poosam dana ko déndi jox la ko ni la nga yokkee ko paas ndax bég ci mu mel ni kon fa tabarakallahu ah bu ma nit ne maa ngi ziyaar ma ni taxaballahu lana walakum waaw taxaballahu lana walakum parce que yiw wi ñun ñëpp a ko soxla kon nag yal na yàlla sotti ko ci ñun ñu jariñoo ko fa tabarakallahu mag ñi lii rek lañu fi bàyyi waaw lii rek lañu fi bàyyi ndax euh, euh, kilifa yi kenn ku nekk sa taxawaay boo ko bëggoon a wax ci àdduna du fi xaj waaw ndax dañu wax ni le cinq mars euh, ñu ni anniversaire sëriñ Serigne Babacar Sy xam nga ñun santaane wuñu ko njaboot yee ko jëlal seen bopp xale yi di ma laaj euh, maam Babacar lan nga nuy wax ci moom ci anniversaire ma ni leen man Babacar Sy ngeen bëgg ma wax leen ci moom Babacar Sy le citoyen wala Babacar Sy le Saint-Louisien wala Babacar Sy l'intellectuel wala Babacar Sy le mystique wala Babacar Sy enfin le calife ndax bu ci nekk boo ko tàmbalee di wax du jeex fekk àdduna di tukki euh, ma wax ni dafa am loo xam ne bu la ko yàlla defalee ci ak xàmmee xam nga ñun sañunu kenn ci ñun taxaw wax ni nañu ma bàkk walla nañu ma tagg parce que si laa sant sañuñu ko parce que waxtaan la neex boroom kër te Cheikh El Hadj moo ni woon këram santul si yàlla la sant ku yàlla yitteel ba ñëwee mu jox la yàlla ju leer nañ moo tax bu ngeen nee ñooy seen kilifa duñu ko nangu ba mu jeex ndax moo tëjoon buntu tarbiya ubbi buntu bokk kon fa tabarakallahu loolu mooy li nga xam ni moom lañu ñu seq ak yéen dëgg la nag këru cëriñ lañu koy tudde euh, xam nga cëriñ ci aaday wolof ci col la nekk waaye sëriñ ci col cheikh borom tariqa bi moo ko njëkk a wax ni bu dee col rekk bokkul euh, sëriñ warul yem ci kaalaam ak kurusam am na suñu doom bu ci woy sax defe na xaaja xaar mbay la waaw mi ngi may yóbbante ziyaar ci sëñ cheikh di ma ko yóbbante ci sëñ abdu ziyaaral ma sama papa Cheikh sama papa Aziz sama papa Serigne Baye sama papa Cheikh El Hadj Malick ñëwoon kër ga seet si ma am na woy wu moom Hadj Xaar Mbaye di wax kaala kurus satalaak sikkim cheikh radiallahu taala anhu wax ni almashiqatu la budda laha min siyaasati almuluk nee na cëriñ gu def diplomatie tungoomul cëriñ ga du dem parce que bu la junni yaakaare junni nit bu ñu la yaakaaree war na ku ci am problème bu la laajee fu muy teg tànkam nga woon ko ko waaw moo tax ñu ba mu yem ci kala kurus mais question responsabilité la euh, may xadara bi xadara xaqiqa la dafay atte yàlla atte àdduna euh, dafa am benn bés ñu am jaaxle ca Ndakaaru booba président Senghor moo fi nekk mu wax ni dafa soxla Serigne Cheikh ñun sëñ bi léeg-léeg ñu xëy suba duñu xam fu mu nekk waaye ci bëccëg bi woote nañu ci kër gi lu ëpp fanweeri yoon léeg ñu ni Alioune Badara Mbengue woote léeg ñu ni Maguette Lo woote léeg ñu ni Amadou Cissé Dia woote waaw ku ku woote rekk laaj ndax sëriñ bi ñëw na ñu ni déedéet mu ni bu ñëwee daal lu mu njëkk def na woote ba ñu toogee ba booru 19 ñu gis ko mu wàcc ci taxi bu màggat moom sëriñ bi mi ngi bokk ay livre ñu daw dogale ko wax ko ni ko présidence dañ la soxla Senghor ne boo ñëwee rek woo ko mu ne à ah, heure bi kenn du ci déranger kilifa 19 jot na na bàyyi ba suba ñu ni ko def ni boo ñëwee nga woote mu ni waaw waaye mais jaaduwul kilifa kenn du ko déranger heure bi ci ëllëg sa moom Senghor ci boppam mu woote yem ci xale bu fa nekk bu nuy wax Talla Ndiaye mu ni ko ndax waxoon nga Serigne Cheikh sama yóbbante mu ni ko waxoon naa ko mu ni ko loo ko wax mu ne ko dama ko ni président de la république woote woon na ni boo ñëwee rek nga woo ko mu ne ko yaa tax woowu ma danga koy wax Sédar sa frère bul ko wax président de la république mais bi ko sëriñ bi wooyee moom Senghor sëñ daf ko wax lu xew mu ni ko dama jaaxle sëñ Cheikh ni ko bu ko waxati mukk ni ko kilifa du ni dama jaaxle bu ko waxee rekk jaaxal njabootam mu ni ko kilifa itam du ni dama tiit ndax bu ko waxee tas yaakaaru njabootam ni ko li lan la ni ko bu dee problème solution ma ngi jonkan ni ko un faux problème moo dul am solution waaye problème bu ne solution ma ngi jonkan pour ñu solliciter ko may wax ni boroom fetal bu sukkee ci kanamu boroom kurus booba boroom kurus gën saxul waaw te dëgg ci lu dëgër yaakaar ko moo gën nax sa bopp xamloo waaw góor gi Jibril Gay sàmb Ngoone daf daan wax ni ku sax càmbar ga wara wàcc sa fasu gi tax ku sax càmbar ga moom la ñuy wax dent de sagesse waaw boo ko xasee ñu ni dootoo màgg mu ni ku màggatul nag di mag te ku màgg ñibbi euh, yàlla jox la ndax wax dëgg yàlla il faut le reconnaître la raya baada xaqiqatin la raya ba'da haqiqatin il est formellement interdit de rêver devant les exigences de la réalité kenn du ko def kenn du gént te taxaw mu mel ni kon kër la gu ñépp yaakaar ci seen digganteeg seen boroom waaye itam ci xalaat nu ñuy doxale seen àdduna fa tabaarakallaahu loolu mooy li nga xam ni moo ci nekk sëriñ Abdu nag ah, li sëriñ Cheikh wax ci moom du dafa tëb tëb rekk wax ko wa ma ataakumu rasuulu fa xuduuhu bi mu laata jib yonent bi daj na lu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana bi mu laata jib yonent bi daj lu ne ba ca apétéose ba wa la ala xuluqin azim kon niilul waaw loolu rek mooy li am solo bu ko defee fa kër gi dafa jafe waaw ndax ñi ko moom mësunu fi bëgg lu yomb waaw moo tax mu jafe ba fi ñëwee foog nga sonn si la yàlla xam na ni dama ni woon Serigne Abdou danaa ko gis waxtaan ak moom parce que dafa am ñoo xam ni ci wàllu kaadaru kër gi dañu sopp kurus waaw kurus ba mu jéggi dayoo waaye kurus dafa am yoon waaw du mu neex rekk nga jël dem jënd sa cuuraay taal sa sondeel tëj sa pantere yor sa kurus ah di kocci kocci te xamuloo li nga def lan la xam nga di nga dem pharmacie jënd fa garet garab bala ngay ubbi garab gi gis ci kaw boîte bi ñu bind ni il faut liir attentivement la notice pour bañ lu la gaañ mais kurusit noonu la mel sëñ Babacar Si daf daan wax ni ki la jox tur pour nga liggéey ko bu cëram àggul ci boo nekkee ci sa biir néeg téye sa kurus bëtam di tege ci yow nee na bul jël tur bi ndax war na lu la nar a gaañ mu dox sa digganteek lool waaye nga jël yi mag ñi jaaroon ba àgg fa nu àgg nga xeeb ko xeeb nga sa latif xeeb nga sa basmala xeeb nga sa bismillahi alladi la yuduru maa ismi shayun fi l ardi wala fi samai wa samil alim xeeb nga sa xisbu sayfi xeeb nga sa mugni xeeb nga sa xisbul bahr yépp xep nga leen sëñ Babacar Si daf daan bay sëñ Mansour ak sëñ ñëw jàng si ci moom mais bu leen jàngalee ba noppi question bi mu leen di njëkk a posé mooy baa du ngeen sikkar waaw baa du ngeen sikkar ñu ni ko ah, ñun taluñu ko papa ñu ngi ci daara ji di jàng suñu àllu mu ne xam ngeen ndaw luy sikkar bu ku ci àbb laa fi malaaka naawe ko bu ko malaaka ma nangoo lu la wàcce jaaxal la waaw dafa am yoon dama toog maag Maodo si mii ak Serigne Babacar mii ci kër Alxaaji Abdul Aziz ñuy waxtaan ñu jékki-jékki ñoom xàqtaay Alxaaji Abdul Aziz ni leen lu ngeen di ree ñu ni ko dafa am benn mbokku taalibe buñ doon nettali Pape Malick di ko wax ni ko kooku suba su xëyee dana jàng sëy fii juróom-ñaari yoon Pape Malick wax ni ah daf koy um ah, mais du ko jariñ ñoom ñu xàqataay Hadj Abdou Aziz laaj leen lu ngeen di rey ñu nettali ko mu ne ah, maamam daan na wax yu mel noonu waaw parce que xam la lay jariñ ak la lay lor sëñ Cheikh dafay wax ni di nga gis ku jox tur mu yàkkamti ko liggéey ba du julli geegu normal ndax yàkkamtee dem ci tur wa teggee mooy véhiculer tur bi ngay sikkar mu sëñ Babacar Si daf daan wax ni wattu leen siin su tooy yi wattu leen taatank yu tooy yi wattu leen xaaf yi wattu leen deel yu tooy yi mu ni doom yi ngeen di xeeb ngañ mu ngeen gis poñeta ko bayal ngañ moo gis poñeta ko boyal gis nga matt yu mag yooyu boo ñëwoon di koseti almet di ci teg di koseti ji ci teg sa almet ay jeex te du tàkk mais jëlal poñet nga dugal ko ci biir taal poñet ma dana boyal ngànj mi ba mu boy moo tax mu ni yi ngeen di xeeb ci la mag ñi jaar ba àgg fa ñu àgg ak it nga def ko pour jaamu sa borom mais bu ko def pour pour euh, bëgg daraja léeg-léeg nga toog gis ku toog ci biir nit ñi di fuddoog di ubbali bëgg ko ko laaj ba mu ni biig nelaw ma mais mu dem tëddi mu dem tëddi waaye toog di ubbali di fudd bëgg ñun la sawaay li nga ni li ma bàcc biig saf taweex nangam nangam mais laajunu la ko waaw ah, asraar asraar dafa am lu muy firi c'est l'ensemble des secrets mystiques mais boo ko xasee ba weer kañ nekkatul asrar waaw loolu la jaratu ko ku ne nga bëgg mu xam li nga weer di jaru damay dox ndakaaru am ku ma taseel ñu nuyoo maa ngi sol sama kurus ci sama baat mu ne ah, ma dégg ni xaw ma kurus boo ko solee sa baat dafay yéexal sukuraat ma ne ko tal bu ma ko taluma ko mukk sukuraat mu ne ma ni ko taluma ko waaw la cheikh abdul qadir jeylaani waxoon keroog bi nuy jël si ruuxam bu njëkk ba te mu dàq malaaka mi ko doon jël si ko waxal yàlla ni ko taluma de taluma ko demal ba ma tal ko ci liggéey la tollu parce que de dañ koy tal dañ koy tal waaw ma dikk ñëw nit ni ma hôpital looy jóge médecin bi nee na dañ ma condamné ma ni ko tout le monde est bu dee faatu rek la tout le monde est condamné loolu kan jarul tiiso jaru ko maa ngi koy wax Cheikh El Hadj Malick mii léegi ma ni ko bi àll bi yaraaxee la nit ñi wéradi ma ni ko garab yi daan dogale jàngoro yëpp gor nañ la ma ni ko yàlla jomb na bind doomu aadama te protégé wu ko waaye garab yi ñu jëmbatoon yépp pour mu protéger nit ñi dog nañu leen moo tax jàngoro ju jóg agsi ma ni non seulement waxuma nit ñi waaye rab yi ci àll bi rab bu feebar xam nga garab gi lay faj waaw bu sa biir dee daw xam nga ñax ga ngay lekk mu arrêté bu sa biir seeree xam nga ñax ga ngay lekk mu tekkee waaye ku ci feebar it doo tawat sa feebar doo ko jàmbat bu la wóoree ni doo wér da ngay seet foo dugg ba dee fa ndax rus na noo tawat ku ci yàlla mayoon ñetti fan ni tawat ni feebar na waaw ay yuux sama ndigg li sama oom sama bopp bi man daal sama diggu gannaaw gi tëlëlël na ñetti fani wér yi ko yàlla mayoon pour wax la ni lu nekk ak saafaraam waaw lu nekk ak saafaraam waaw eh, damay wax ni léegi doomu aadama ak garab eh, comme oto ak essence boo jëlul garab doo taxaw waaw oto bu ci essence nekkul du daw loolu yàlla dogal waaye ñun tam àgg nañ ca ak feebar yu ndaw ndawaan yi te nga yenni sa xel xam nga feebar la nu mën a faj mais xalaat kenn mënu koo faj waaw xalaat kenn mënu koo faj nga yenni sa bopp nga yenni sa bopp ndax itam wax dëgg yàlla yàlla ëpp na loolu damay wax toujours ni man turam yépp benn ma ci gën a neex moom yàlla huwa doy na waaw dañu am benn wëllëre bu sopp sëñ Cheikh léeg-léeg mu daan ko invité këram mu dem añi yenn du faak moom kenn du xam ni mu nga fa mu nga ca biir kër ga ndax ku discret la woon moom kooku muy monsieur Dabi Diagne waaw Dabi Diagne benn bu Louga daan na invité sëriñ bi mu yendu këram waaye sëñ Cheikh daf may wax ni ma dabi ku baax la dana la jox nga añ ba sa biir fees mais dana la poser question ba nga di digérer <laughs> mu ni ma daf ma laaj daf ma laaj démb bi ma yendoo këram ni ma mel lu tax yàlla buy wax ci alxuraan mel ni kuy bàkku sëñ Cheikh ko dafa mën boppam moo tax ni ko ku mën sa bopp ni mu mëne boppam bu la neexee nga bàkku dara du la ci fekk waaw yàlla ku mën boppam la mën boppam a tax mu mujj bind doomu aadama dinaay wax toujours ni bu ko njëkkoon bind rekk coow bare waaw waaye bind léppam ba mu sotti mu door bind doomu aadama waaw mais ni cela prouve que Dieu n'a pas besoin de notre existence pour exister La preuve en est que l'homme le dernier élément de de de, la création. moom la mujjee bind waaw ah. bi muy wékk asamaanam si abul kenn échel ku mu àbboon échel di nga xëy suba ñaan ko mayu la nga ni pourtant bu muy wékk asamaanam si maa ko abaloon échelle yàlla kenn du ko chantage waaw ah. éviter na ko kenn du ko chantage ma ni bu àdduna yépp àndoon bañ ko jaamu du te mu nekk yàlla parce que nekk na ko ba noppi waaw ah. loolu la mag ñi am may wax toujours ni nag li ma gën a yéem ci mag ñi mooy dañu boole ñaari sentiment yu bokkul dañu wóolu yàlla ba mu jéggi dayo waaye ñu wóoloo di ko ko ba mu jéggi dayoo wóolu ko ndax lu dul moom nen la waaye wóoloo di ko ko ndax dara safu ko moo tax mag moo ci toogal yërëm tabarakallahu loolu yaakaar leer moo nu boole ak kër gi waaw yàlla di ñaan yàlla ci mbaaxam ak kàttanam ak mën-mënam mu taas nu ci leeru mag ñi euh, euh, bi nuy ñëw léegi waxoon naa leen ko daw pourtant waxoon naa leen ñun ay màggat lañu waaw bu ngeen nu dee xàllal dangeen ngeen nuy pamt pamte ba nuy appaat sëñ Cheikh dañu toog di fàttali ko ñuy ree sëñ Cheikh ni ma xam nga buñ masaan jóge burdu ba di jëm si ci kër gi mu ni ma li ma daan reeloo mooy xuloo bi sëñ Mansour daan xuloog Ibra loo rahmatullah aley mu ne ma parce que Ibra du nangu sëñ Mansour raw ko day tëye ci mbubb sëñ Mansour mi ci gannaaw ko defee sëñ Mansour nan ko Ibra bay son mbubb mi Ibra bay son mu ni ma dañuy xuloo ca jàkka ja ba ci biir kër gi ma ni ko ànd naag sëñ Babacar Sy ñu dem ci burdu ci zawiya Cheikh Al Hadj keroog bi ñëwee ba yéeg ci kaw sëñ Babacar di summeeku euh, summeeku mi ngi muuñ daka am na lum nar wax mu ni soxna su ah sama gaa ñi day xér nañu waaw mu ni waaye bu ma leen waxoon ni ci sama tësten yi lañu fanaan day àdduna tukki mu ne ca sawyeb ba ci kër gi tël tël tël tël tël ma ni ah kuy wala xàllal nit te bëggoo eh, jiitu foog nga sonnal ko waaye daw dañ nu pamte pamte rek ba tabarkal la waaye ren itam ñu pamte pamteenu yal na ngeen nu yàgg pamte pamte nanu ko yàlla defal ah sëñ Cheikh Tidiane si nee na mi ngi renouveler confiance ci sëriñ Abdou waaw na nañ ko ci jàppale te nee na ñi jiital mooy Serigne Babacar Sy mi ak Cheikh El Hadj mi ak man nee itam bu nuy waxtaan ak njaboot ji nañ leen di wax lu leen kontaan loo te bañ leen wax lu yëkkati seen xol waaw mu ni lool daal lañu seq ak ñoom te dañ leen ko war di wax waaw dañ leen ko war di wax jamono yu nekk kon nag ñi ngi yeesal suñu kóllëreeg yéen di ñaan ci barke mag ñi ak seen leer yàlla fay leen seen coono allah xam na ko euh, fu ñu toll dañ leen di ñeewant ndax rekk kóllëre dafa diis waaw kóllëre dafa diis te boo ko dundalul mu daanu waaw mag ñi nag ñu baax lañu waaw di romb lu nitu yàlla moom lu tuuti nga laal ko ca yàlla teral la ci euh, Cheikh El Hadj Malick euh, bale ca Dakar dañu koy liggéey kër ga dañu koy liggéey waaye ci gént am mag mu gént gi Cheikh El Hadj Malick muy roñ ay néew ca betuwaaru Ndakaaru di leen dugal ci biir zawiyam boobu ba Cheikh El Hadj Malick rañaale ca néew ya ku ñu xamul woon ci taxawaayu diine alaaji peedar laaj ko ni ko lu tax nga roñaale ko te kii daf daan taasul jigéen ñi rekk di leen feccal mu ni ko bi nuy liggéey kër sëriñ Babacar Si moom kii def ci ma sa yenu benn birig ma rus roñ mag ñi te roñaale wu ma ko waaw yooyu chance la waaw yàlla koy defal doomu aadama moo tax nit yàlla bu ko xeebal daram waaw nit yàlla bu ko xeebal daram yal yàlla fay leen ah xam naa budul woon temps bi temps bi maa ngi wax ni sax dinañu seet nu ñu waxtaanaate wax naa ko Sëriñ Abdou na ñee ñu seet toog ak Sëriñ Mbaye Hadj Malick nu seet ndax àdduna dañ koy réorganiser waa jamono bu nekk ñu seet nu ñu réorganiser nu ñu tërale waaw ah, ñu nu tërale kër gi tabaarakallaahu eh, këru barke la këru xam-xam la këru leer la waaw waaye kër nag mën nga fa am téeméeri at di fa dund di tëdd di yeewu di ndekki di añ di reer fekk soxla boroom kër gi duñ la ko woon waaw leer gaag barke baag yépp boo ko soxlawul doo ko jariñoo waaw mag ñi daala nga ak seen ween ku mu yitteel ñu sexal la ko nga nàmp ko loolu rekk mooy li am solo bu ko defee ñu wax Serigne Abdou ni ko li seen Cheikh wax d' accord nañ ci à cent pour cent waaw d' accord nañ ci à cent pour cent fa tabarakallahu bari na secret yu mu waaw bari na secret yu mu xam damay wax ni kër gi dafay àtte charia di àtte politique waaw diggante 1950 ba indépendance politicien bu mës a am problème ñëw pour sëñ Babacar réglé ko sëñ Cheikh dafay wax sëriñ Abdou dalal ko sa néeg ba góor gi réglé problème ak leader politique bu mu mën a doon waaw eh. wolof nag mbubb la xam xamul sëriñ gis nga président lamin Gueye xuloo bànneex bi mu mujj xuloog sëriñ Cheikh lu jiitu mu faatu dafa wax sëriñ Cheikh ne ko fenn rek laa leen condamné mooy lu tax ngeen bàyyi seen papa ñu def ko sëriñu wolof ni ko seen papa du sëriñu wolof intellectuel c'est un homme de valeur ni ko dangeen waroon di ko nëbb six mois génne ko six mois waaye ngeen bàyyi ko ci loxo nit ñi rek ku mu neex nga gis ko ni ko kooku waru leen ko woon def Ah, waaye loo ci mën loo ci mën boo ko deful ñu ni du sëriñ boo ko deful ñu sëriñ lañu lay indil ci chantage maa ngi koy nettali démb ca takku doomu Alaaji Mansour Mbaye ga bi ma sëñ Cheikh yebaloon moo wax ni Soxna Sukan fu ne la ko nit ñi daan jaar pour mu condamné ñu waaw pour mu condamné parce que ñeme noo ñëw ci ñun mais ci moom lañuy jaar ah waxal ci sëñ Cheikh moom dafay daw nit ñi rek wax ci mu ngee daw nit ñi te itam na xam ni nit eh, nitay garabam nangam nangam nangam waaye eh, jógal ci sa bopp te nga wattu diw jóg ci sa bopp pour lan diñ ci dem ba boo ko gëmee dootoo tëdd nelaw foo toll yaa ngi defe nit ñi nga jëm ci sa kaw mais soxnaastu bu masaan wax sëñ Cheikh ni ko bàyyil nit ñi ngay daw sëñ Cheikh daf koy wax ni ko dawuma leen dama fas yéenewul leneen boole maag ñoom lu dul farata ko farata rekk may boole ñoom ni ko laaj leen farata bu ñu ma saam te gisunu ma mu ne ko waaw waaye dangay xam ni nit nitay garabam mu ni ko pénc mee ko wax waaye alquran dafa wax ni nit yàllaay garabam ki gis-gis yi bokkul gis-gis yi bokkul benn nga nàmp naaw ca kaw walla nga bañ a nàmp raam ni mbëtt yi bu la ci gënal nag nga jël ko waaw ba tax na tabaarakallaahu ñi ngi sant ñëpp yeesal sunu ziyaar ak ci nit ñi ziyaara leen ñoom itam ziyaara leen ñoom itam waaw ndax sëñ Cheikh dafa am lu mu gëm dafay wax ne ah nit ñi yàlla mën na ci nëbb ñu ëpp cër kon koo gis teralal waaw koo gis rek teralal bu ko gàntul dara waaw masawu masawu ñépp nag masawu sëñ Babacar mi eh, rek léeg-léeg yaram diis man gëw ma woon ni dinaa mën a ñëw yàlla xam na ko waaye rekk ñaan ma ni naa ñëw boole soj ak rhumatisme ak tabaarakallaahu yi fi mag ñi bari eh, bàyyi dafa bare Haj Malik mi noonu kon yàlla na yàlla defal nu tawfiq yàlla nangul nu sunu ziar yàlla bàyyil nu fi suñu kilifa yi ba ca kanam kanama kanam yàlla fay leen yiw mu bari lool te ngeen bañ a gëlëm lool rekk lañ ci doon sànni ci ndigalu kilifa gi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala jërëjëf jërëjëf Haj Malick ibnu Seydou Boubacar nun day dugal nga banneex bu rëy ci nun ndax renouvellement de confiance Seydou Abdoul Aziz nun ñaat bëgg nunu ci confiance boobu nag ma su fi deñ waaye Cheikh Seydou El Hadj Malick damay waxtaan ak Serigne Cheikh benn bés Sidi Boubacar nga baal ma mu ne ma Mansour Mbaye ñun ñaar rek ay yàlla ku ma teree naan sama kafe de yaa ma tooñ ma ne ko yow ni dañ la teree naan sa café yow Sidi Boubacar Cheikh Seydi El Hadji Malick asukan maram sebde Abdoulaye wulu ma duxum ma mu ne tekk ba yàgg yow Mansour xam nga ku may teree naan sama kafe ma ne ko déedéet si mu ne mooy ku ma wax lu xam ne du ma ndékki du ma añ du ma reer Mansour xam nga ku ma bëgg ma ne ko déedéet si mënuma ku may wax lu xam ne dinaa ci bég ci mbokk gi ak ci tarixa bi <laughs> mosoo wax loolu Haj Malick noo ngi lay gërëm si bu baax ci kàddu yi